our program and jàngaat ba jiitu jëlee nañ ko ci téere yonent ba Ezekiel yàlla suñu borom ne na léegi man sax-sax dinaa uti sumay xar te dinaa leen wotu naka saamakat di woto xari géetaam ba xaram ya tasaaroo noonu laa di wotu dee sumay xar te dinaa leen musali uti leen ca béréb yañu tasaaroo woon yéppa ca bésu til ak lindem dinaa leen génne ca yeneen réew ya dinaa leen woyle te deeloo leen seen dëkka dinaa leen yóbbu ca tundu Israel ya saama leen ca xuur ya ak ca béréb yu gën a baax dina leen sàmmi ca perlukaayu ooma oom ca tàngooru Israel ya la seen porlu di nekki foofu lañooy noppaleku ci ñax mu tooy te ci porlu yu neex lañu di fer ca tundu Israel ya yàlla suñu borom ne na maa di sàmmi sumay xaru géeta maa leen di delloo fu ñuy noppaloo har ma réeroon dinaa ko uti har ma gélémoon dinaa ko delloosi har mu gaañu dina ko faj har mu néew doole dinaa ko yafal har mu duuf te bare doole dina ko denca di ko saama bu jub lile baatum yàlla la sant nañu yàlla pour suñu soom dinañu tontu borom baa di suma sàmmkat du ma ñàkk dara borom baa di suma sàmmkat du ma ñàkk dara ci diggu ñax mu tooy la may dalal borom baa di suma sàmmkat du ma ñàkk dara dina ma nàndali ci ndox mu teey te dina ma may doole ci yoon wu wóor la may jaarloo ndax turam joll yi borom bee di ma saamakat duma ñàkk dara yaa ombal ëmbal añ ci suma kanam imbañ di tuur xeeñ-xeeñ ci suma boppa kaas gi ma naan feesal na ma ak baaneex borom bee di suma saamakat duma ñàkk dara barkeek muur dinañu ma gunge suma dund bakkan géppa dinaa mun a dellu ca këru borom bi di fa dëkk bés bu nekk ba ba may dee yi borom bee di suma saamakat du ñàkka dara Our gospel is taken from the Holy Gospel according to Matthew, Matthew chapter 25, verses 31 to 46. He will take his seat on the throne of glory and he will separate men one from another. The reading is followed by Father Sonko's reflection on the reading. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, When the Son of Man comes in his glory, escorted by all the angels, then he will take his seat on his throne of glory. All the nations will be assembled before him, and he will separate men one from another as the shepherd separates sheep from goats. He will place the sheep on his right hand and the goats on his left. Then the king will say to those on his right hand, Come you whom my father has blessed, take for your heritage the kingdom prepared for you since the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me a drink. I was a stranger and you made me welcome. Naked and you clothed me. Sick and you visited me. In prison and you came to see me. Then the virtuous will say to him in reply, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and gave you a drink? When did we see you a stranger and made you welcome, naked and clothed you, sick or in prison and go to see you?